Bienvenue sur Salam Vision. nee na ñu ngi nuyu ñëpp. te di di di di te di leen te di leen te ziare ñëpp. ci bis bu tedd bi. dañuy ziyaare ñëpp ci bis bu tedd bi. loolu lépp nag ñu ngi ñu ngi jiital suñu yi nekk ci lépp nag ñu ngi ciy jiital suñu kilifa yi nekk ci suñu kanam. muy Cheikh Cheikh Mountakha. muy Cheikh Mouhamadul Mountakha. Hmm, ak Cheikh Abou Baraka. ak Cheikh Abou Baraka. ak ñaan ak ñi tolloog ñun ñëpp ñu ànd ci waaw ci ndakay xalifa. ak ñi nekk ak ñoom ñëpp di ay xalifa. ci ci yoon wi ci yoonu murit. wala ñuy kilifa ci yoonu lislaam. wala ñuy kilifa ci yoonu lislaam. ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel nee na mu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel ci bis bii. ñu xam ne xam ne bis ñun ñëpp bis ñoo ko bokk. te di wax ni ñu war a xam ne ñun ñëpp bis bii ñoo ko bokk. lislaam bi ñëpp ñoo ko bokk lislaam bi. bis bii lislaam bi yëpp ñoo ko bokk. ak bi ak war a ak mbindeef war a mbindeef sax ñëpp ci lañ bokk. mbindeef yëpp sax ci lañu bokk ci bis bi. waaw ndax njëriñ njëriñ ñu am lamboo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ko yëg. ndax njëriñ li nga xamante ni moom la bis bii lamboo ñëpp a ko yëg. waaw kon kon nag moo tax ñuy siyaare ñëpp rek. moo tax ñuy siyaare ñëpp rek. di ci ndokkeel itam ñëpp. waaw bokk ànd ko def ko ni ni ni ko ni yàlla gërëm. di ñaan yàlla ñu ànd def ko ni ko yàlla di gërëmee. ndax sant sant yàlla sant yàlla la la borom ki koy woote la woote. ndax bis bi ki ko woote sant yàlla moo tax mu woote ko. ndax dañu ne nekk sant la yàlla. ndax dafa ninu nañu nañu ko ci sant la yàlla. sant yàlla nag waaw loolu solo la ci ci ci ci ci ci ci ab jaamam. sant yàlla nag lu am solo la ci ab jaamam. kon loolu ndimbal la ci ñun ñu koy sant la yàlla. kon nag loolu ndimbal la ci ñun ñu koy sant la yàlla. sant yàlla nag ah, ñaar day ñaari xeet la ci ñu koy fire nee na sant yàlla nag ñaari xeet la ci ñi ñu koy firee. bu zaahir ak bu baatin. muy bu zaahir ak bu baatin. bu zaahir bi moom moom fii lay yem rek ci àdduna. nee na bu zaahir bi moom fii lay yem ci àdduna. moom day ànd ak mooy jëf la jëf mooy jëf jëf nga bàyyi tere. boobu moom dafay ànd ak jëf ak bàyyi tere. ci ci xam nga li fi la yem ci àdduna la yem. nga xam ni loolu fii ci àdduna la yem. baatin bi na moom day dem ba na nee na bu baatin bi nag moom dafay dem ba aljana ku nekk àjjana da koy da koy def ku nekk àjjana daf koy def mooy alhamdulilahi rabbil alamin noonu lañ ko tuddee alhamdulilah mooy al mooy alhamdulilahi noonu lañ ko tuddee waaw ñu nekk àjjana foo seen foo duñu dañ di ko di ko wax fuñ toll nee na ñi nga xamante ne ñoo nekk àjjana duñu dañ di ko wax fuñ toll waaw bu saayir bi nga xam ne moom fii adduna la yem nag moom ku faatu rek jeex na ci yow nee bu saayir bi nga xamante ni fii la yem ci àdduna ku faatu rek jeex na ci yow waaw yooyu nag ñoom ah, dañ ko dañ ko firee ñoom dafa am ñu ko firee ñoom ñoo ñoom waa waa waa tasawuf tasawuf nee na loolu nag dafa am nu ko waa tasawuf firee loo xam ne mu gën a motale sax ba ndax dafa dafa dafa jotal def ndigal bàyyi tere nga xam ni boobu moom waa tasawuf ni ñu ko firee moo gën a matal bàyyi jëf ndigal bàyyi tere. ci ci la tàmbalee waaye da ko jéggi nag. nee na ci loolu la tàmbalee waaye daf koo jéggi. waaw ñoom ni ñu koy firee moo di dañ ko def ñetti ñetti tolluwaay. ñoom ni ñu koy firee moo di da nga koy def ñetti tolluwaay. tolluwaay bu njëkk nee na benn boor boor moo ci gën a kawe. nee na tolluwaay bu njëkk bi nag boobu moom moo ci gën a kawe. moom la waa tasawuf moom ñuy dund ñoom waa tasawuf nee na boobu tolluwaay moom la waa ahlul tasawuf di dunde moo di jaamu yàlla. moo di jaamu yàlla. ngir yegg màggal yàlla. di màggal yàlla. ngir màggal ngir màggal ko. mooy jaamu yàlla ngir màggal ko. ngir ngir di ko ak ak ga ngir ak kaweem ga moom yàlla. waa di ko jaamu yàlla ñu loolu nga xam jaamu yàlla jaamu yàlla sakku gi dara. nga xam ni ñoom jaamu googu ñu jaamu yàlla sakkuwuñ ci dara. waaw boobu bi gën a kawe. boobu bu njëkk bi gën a kawe. da cee gën a nekk di gën a diggu nag. nee na bi nga xamante ni moo ci gën a diggu doomu. mooy da ngay jaamu yàlla ngir def ngir li mu ko digal. mooy da ngay jaamu yàlla ngir digal gi mu la ko digal moom yàlla. ngir waaw ngir ngir ngir ngir nag bëgg bëgg bëgg ci bëgg ci al hmm. waaw waaw waaw topp ndigal bàyyi tere yi moom mooy bàyyi topp ndigal bàyyi tere yi rek yem ci la yem ci. nee na loolu mooy topp ndigal yi bàyyi tere yi rek yem ci. ngir ngir ngir ngir daal li ko yàlla digal. ngir li la yàlla digal. ngir nga topp def loolu bàyyi tere yi def ndigal bàyyi tere yi. mooy nga def ndigal yi bàyyi tere yi. moom moo ci moo ci gën a diggu dóomu. nee na loolu moo ci gën a diggu dóomu. bi ci gën a suufee nag. nee na bi ci gën a suufee nag. mooy koo xam ne day def ndigal yàlla yi. mooy koo xam ne dafay def ndigalu yàlla yi. ngir ngir solo àjjana ëllëg ngir soxla àjjanay ëllëg. ngir daal bëgg a tabbee àjjana rek. ngir bëgg a tabbee àjjana rek moo tax mu di ko def. ak it moytu tere yi. ak it di moytu tere yi. ngir ragal sawara. ngir ragal sawara. kooku boobu moom ko daal boobu moom la gën a a suufee ci ci mooy bi ci gën a suufee ci sant yàlla yi. kon kon sant yàlla benn yëpp yëpp baax daal kon. kon dafay tekki ni sant yàlla yëpp a baax. dafa am dafa ci gën a kawe a gën a kawe ak bu ci gën a digg doomu ak bu ci gën a suufee. kon daal bu ci koy jàpp rek kon xam ne yaa yoon wa. kon nag waay bu ci waay jàpp rek na nga xam ni wàcculoo yoon. waaye nag bi ci gën a kawe nag mooy bi gën a taamu nag. bi ci gën a kawe moom mooy bi nga xamante ni moom la ñu taamu. mooy wax koo xam ne da jaamu yàlla rek. xamante ni dafay jaamu yàlla rek. ngir rek màgg màggal yàlla rek. ngir màggal yàlla rek. waaw xam daal moom yàlla nga xam ndax yàlla kenn mënu ko jaamu ba fay ko àqam. nga xam ni moom jaamu jaamukatu yàlla bi mënul la jaamu yàlla ba fay ko àqam. naka noonu tamit xam nañ ni kenn mënta jaamu yàlla ba ba mu dëkkal sa àjjana. ko noonu itam xam nañ ni kenn mënta jaamu yàlla ba mu dëkkal la ci àjjana. wala wala nga koy wala nga koy jaamu ba mu mu sawara. wala nga di ko jaamu ba mu musal ci sawara. ci coobare lépp coobare la nekk lépp nag ci coobare sunu borom la nekk. ku neex daal mu tabal la aljana. ku ko neex mu tabal la aljana. ku ko neex mu mu bëggal la. ku ko neex it mu mu tabal la sawara. ku ko neex it mu tabal la sawara. waaye dafa fekk nag ab jullit moom loolu li ko yàlla sant mooy loolu. waaye nag dafa ni moom ab jullit li ko yàlla sant. moo di na day rafet njort. moo di fu mu toll nay rafet njot ci nekk ci lu baax. ci nekk ci lu baax. su nekkee ci safaan nag. su nekkee ci safaan nag. muy tuub tuub te te te te dellu ci lam lam ba bay def loon def te bañ a def la ko taxoon di tuub waaw mu ngi ngi yàlla jég jéggal ko musal ko ëllëg sunu borom mën na koo jéggal ngir mu musal ko ëllëg kon nag ñun suñu waxtaanu ko dañ koy jëmale ci ci ci bu njëkk bi bi gën a kawe mooy sant bi gën a kawe kon nag suñu waxtaanu tey bi dañu koy jëmale rek ci sant gi nga xamante ni moo gën a kawe xam moom waa tasawuf ñoom seen dund loolu la nga xamante ni waa tasawuf moom seenu dund mooy loolu mooy ñoom jaam yàlla dañu jaam yàlla ngir rek magal yàlla nga xam ni waa ahlul soof ñoom dañuy jaamu yàlla rek ngir màggal ko. nga xam ni sëñ Tuubaa ci la bokkoon. nga xam ni sëñ Tuubaa moom ci loolu la bokkoon. moom nag da cee xam ne kenn mosu fa na. moom sëñ Tuubaa nag cee yegg foo xamante ni kenn mosu faa yegg. ndax xam nañ ni eh, jaamu yàlla jaamu yàlla bi. ndax xam nañ ni jaamu yàlla bi. am na diggante boo xam ne su ko gaaree ci ci ay tolluwaay. am na diggante boo xamante ni su ko gaaree ci ay tolluwaay. yàlla mën na yàlla mën na ko jox na ko ay woyofal yoo xam ne. yàlla sunu borom jox na ko ay woyofal yoo xamante ni. su jaaree ba génn ci tolluwaay yooyu tolluwaay ci la mu nekkoon. su ci jaaree ba génn ci tolluwaay yooyu dellu ci la mu nekkoon. ni nga xam ne nii ku nekk ci dëkk digg àll. nit ki. am xam ne ku dikk ku nekk digg digg màndiñ. xam nañ ni koo xam ne dafa nekk ci digg màndiñ. di bëgg a dee xiif. di bëgg a dee ak xiif. te gis medd. ba gis medd. mën na caa lekk. mën na caa lekk nee na loolu bu mu ko ragal mën na caa lekk ñu sant Guèye la moom moo tax muy wax nag. nee na mën na ko mën na ci jëfandikoo ba keroog muy gis leneen. waaw waaye nag su dëgg nag yaakaar yàlla kese rek. waaye nag su dëgëree nag yaakaar yàlla kese. ba weesu ko nag. ba weesu ko nee na kooku nag moom beneen mbir la. kooku moom nee na kooku moom dafay yokk dara jàmm. man sama sama sama jàngat bopp sama jàngat man. nee na loolu moom mooy ab jàngatam. sama jàngat sëñ bi nee na sam nee na jàngatam moom ci sëriñ bi. ak doxinam yëpp lool la. ak doxinam yëpp loolu la doxinam. nee na jàngatam ci sëriñ bi ak doxinam lépp loolu la. ci ci tàmbali boo ko victoire bi jëlee ci Sénégal ba ba ñibbisee ba loolu sax bi bi mu demagul sax tam lay tam lay natt tam lay jumale seen ci euh, nag kenn. nee na bi sëriñ bi tàmbalee. di ko euh, nasaraan yi tàmbalee di ko di ko teg teg. si tàmbali di ko teg ay nattu. ba ba ba mu ñëwee. ba ni mu ñibbiseewaat fii ci Sénégal. fu mu toll léegi da xam ne fii am na am na foo tolluwaay boo xam ne mën na mën na fa jëfandikoo lu sa loo xam ne sant ko dàq. dafay gis ne am na fu mu toll foo xamante ni bu ko jëfandikoo woon. lislaam du lislaam du ko du ko. lislaam du ko làq. waaw ah, du ko ko. lislaam ko du yedd ci dara. waaw ah, ndax bu jëkk bi moo ndax bu njëkk bi nee na mooy. am nañu wax nee na bureau Ndar. nee na am ca Ndar Ndar Ndar ci gàttal. nee na am ñenn wax nii ca Ndar. am na na fu ñu dugaloon sëriñ si fu ñu dugal dugal. am na fu ñu dugaloon sëriñ si. di leen lekkaloo bu leen lekkaloo. di leen lekkaloo am nañu wax kalbu. ah am ah, ah, ah, ñu wax loolu. waaw nee na am nañu wax loolu. waaw waaw nga xam ni foofa li sàmm moom moom man ku bëggoon a rey te te te xeet mën ngaa xam ni foofu lislaam ku ñu ku a rey nga am say pexe génn ca. waaw ci ci lu demee noonu. nee na ci lu demee noonu. sëriñ bi noonu ñu def ci moom loolu ndimbalu yàlla waaye nag ak kii kii bi moom na mu def ba génn ci loolu ndimbalu yàlla nag waaye ak njàmbaaram. ak njàmbaaram am foofu. loolu benn benn bànqaar. nee na loolu mooy benn jàngat bi. ak ak ak mooy benn bi mu seetlu foofu. nee na mooy benn bi mu seetlu foofu. bu ñaareel moom mooy bi gën a bi gën a um, siiw nag moom. nee na bu ñaareel mooy bi gën a siiw nag moom. te gën a fes. a fes. mooy julli géej gi. mooy julli géej gi. ndax nee géej gi. ndax nee na géej gi. mooy julli bu muy ba. ba muy jël deram di ko ca sànni. nee na boo xamoon woon dana dellu si. nee na xamul woon ne boobu ndax dina dellu seen dé daal xam nañ daal rek kii kii jot na nee na xam daal waxtu suñu borom bi jot na war na koo julli te fii mu nekk ci gaal gi xat na ci moom ba mënu fay julli moo tax mu jël der bi sànni ko ci ndox mi waaye ba mu koy sànni ci ndox mi sax xamul woon ne dana dellu siwaat ci ci gaal gi waaye ngëm gi mu gëm yàlla rek ko waral yàlla fekk ko ci ngëmam googu ba loolu mujj nekk kéemaan gu rëy ne ne ma ma ma ma naa nekk ba ba gaal gaal gi di yegg ndax naa xaar ba gaal gi yegg fa a yegg. su fekkee tubaab yi dañu koo aaye julli ci biir gaal noonu la mbir mi demee. waaw naa nekk ba yegg ci dëkk ba. mënoon ak julleem. loolu lislaam dàq ko. waaw noonu la suñu maas gi mën nañu koo def. a moom yegg na fa yàlla yegg na foofu waaye nag moom Serigne Touba yàlla yegg na ko foo xamante ni. bakkanam xa xa ban moo tax fan mën na fa yem. nga xam ni loolu mu jëf noonu bakkanam sax mënoon na faa yem. kon kon mooy mooy li wax doon doon jaamu yàlla ngir màggal yàlla. kon mooy li Serigne bi wax ni moom daf Serigne Touba daf doon jaamu yàlla ngir màggal yàlla. waaye mag doon jaamu yàlla ngir bëgg a. waaye Serigne Touba waaye Serigne Touba jaamuwul yàlla ngir bëgg ajjana wala ragal sa wala def wala ragal ne su deful ndigal yi da ci am da ci am yaraanga. wala mu ragal ne bu defoon ndigal yi. bu bu deful bu bu bu defee tere dana ci am mbugal yu mel noonu. wala bu defee tere it dana ci am lu mbugal lu mbugal lu mel noonu. waaw la la wax tasawuf di firee. sant yàlla nee na loolu la waa ëhlul tasawuf di firee sant yàlla. waaw kii lii ku ko fekk mi ngi ci mi ngi Masaalikul Jinaan nee na lii muy wax nii ku dem ci Masaalikul Jinaan da nga ko gis. at yëpp moom la moom la def xutba. nag ci loolu lay def xutba. moo tàmbalee ci waajib léegi. nee na bi mu tàmbalee ci jumaa ji ba léegi. waaye nag mosu ko wax ci wolof moo tax. waaye nee na mosu koo wax ci wolof ci arab rek. ci arab rek la koy wax. ren nag sama xel dem naa ko waaye nee na nag ren xelam dem ci ne na ko firi. ndax ñu bari xamuñu li fi ne. ndax ñu bari xamuñu. xamuñu sant yàlla mooy lan. lan mooy sant yàlla. waaw sant yàlla mooy mooy nee na sant yàlla mooy li mu wax rek. waaw jë jëf gi daal ci nee na jëfe gi daal ci àdduna la yem. mooy def ndigal bàyyi tere. waaw bu dee nag àjjana ñoom. bu dee nag àjjana ñoom. ku dem àjjana. nee na ku dem àjjana. doo bàyyi sant yàlla ba ba abadan. doo bàyyi sant yàlla ba abadan moom. moom alhamdulilah moo seen sant. kon nag koy sant. kon nag yàlla na nu yàlla boole ci ñi koy sant. na sant kat lu la. ndax sant yàlla kat neen lu jafe la. yàlla sunu borom moo ko wax ci alxuraan. ko mën moo tax mu ne yàlla nee na ñi ko mën a sant ñu néew lañ. kon nag yàlla yàlla boole ci kon nag yàlla na ñu yàlla boole ci ñi koy sant amiin. waaw toog barkeeb Serigne ah, Touba nga xam ne moom moo ñu ci ñi koy santalee yàlla. mi nga xamante ne moo ñu boole ci bisam bii mu ne nañ ko sant yàlla. waaw ñu xam ne sant tamit def lu baax ci la moom def lu baax. ñu xam ne tamit ne sant yàlla def lu baax ci la. muy tiyaaba. mooy di lu mel ni bernde yi mooy da lu mel ni bernde yi ñuy def. waaye nee na moom moo ko def sax nee na moom. moom sëñ Tuubaa nee na moom sëñ Tuubaa moo jëkk a weccee ko aw gàtt buñ ko joxoon addiya euh, nee na yaakaar nañu bëy la wala xar bëy la woon sax mu dem weccee ko ko ñu indil ko xar nee na loolu ci la tàmbalee màggal gi di mooy tànn ko di ko defal boppam nee na mu tàmbali ko di ko defal boppam. ñu ko fu waay nekk daal ñëwatee nga def ko. digle woon itam fu waay nekkati bu bis bi ñëwatee na nga ko na na nga ko màggal. taalibe yi eh, fonkoon ko lool nag. taalibe itam fonkoon ko lool. ba sax bëggoon ko tuddee tabaskiwaat. ba bëggoon ko tuddee tabaskiwaat. mu ne kon loolu day mu ne leen loolu kon dafay nekk bu daata moom du sos bidaa. kon nag nañu ko tuddee màggal. kon nag nañu kon màggal nañu ko tuddee màggal. sëñ Fallou te xam nga xam nañ lu ñu fi xam nañ ko nee na Serigne Fallou moom moom nañ ko tuddee màggal te màggal Serigne Fallou ah. moo ko tuddee màggal Serigne Touba moo ko tuddee woon màggal kon nag kon màggal day demee day li mu wax léegi kon moom sëñ bi léegi mooy yàlla ah, mooy li mu wax léegi nii rek ci ci ci ci ci wàllu sant a kawe mooy mooy màggal yàlla muy sant gi gën a kawe nga xam ne da jaamu yàlla ngir màggal ko rek kon moo la. kon da ko suñ suñ kon li mu wax léegi. nee na kon li mu wax lépp dafa dellusiwaat ci li sëñ Tuubaa wax. waaw muy sant sant li mu firi ci wolof mooy magal waaw nee sant li muy firi ci wolof mooy magal. sëriñ bi moo jël bis nañ ko magal. nañ ko tuddee magal lii mu def nii. sant gi mu sant yàlla. sëriñ bi moom nañ ko tuddee màggal. waaw man googu ma ma ma ko yëgal ko ci waa tasawuf bi na nag moom màggal googu noonu moo ko yëgal ci waa ahlu tasawuf ni ñu koy firee. ni ñu firee sant yàlla googu gën yàlla. nee na ci ni waa ahlu tasawuf firee sant yàlla. ji gën a kawe muy màggal yàlla. waaw kon foofu na kon. ñaar yooyu dëppoo na alhamdulilah. waaw waaw bi fan lu ñëwee nag. la ko la ko la ne kon nañ koy daje di ko def Touba. la ne kon na ñëpp ñëw fii Touba ñu di fi daje di ko fi def. ndax xam na jamono yi jëkk Touba jafe woon na. ndax jamono yooyu ñëw Touba jafe woon na. Euh, nga xam ni su ñëpp su mbooloo mu dajee danañ mën a saafante. nemmeekonte ci seen bopp. nemmeekonte ci seen bopp. jokk xam lépp nekk jokk bokk nga xam ni lépp dafay nekk jokk bokk ñu àndandoo sant yàlla def sant yàlla ñu àndandoo def sant yàlla gi su boobaa ni ko diglee rek ba ci gileem su boobaa ni ñu ko diglee rek tàmbalee ko def ko ñi ci ginaar ba gileem rek lu ci waay mën rek kon foofu mooy cosaanu màggal gi kon yàlla na nu yàlla boole ci ñi koy màggal ci ñi ko yàlla gën a bëggee te sëñ bi wootee ko noonu. kon ñu ngi ñaan yàlla fekk ko ay déwén déwén. loolu nag jàngate moo di ci ci ci ci jëf nee na loolu nag liñ ci jàngatee ci jëf yooyu moo di. waaw di ko xam ne mbir da koo war. koo xam ni mbir da ko war. ak ak ak na ko yàlla digalee mu ko defee noonu. ak ni ko yàlla digalee mu mu di ko defee noonu. kon nag kon kon kon kooku kooku saggan bokk ci woon dara kooku saggan moom da nee na loolu moom ku saggan moom da nga ciy génn. waaw ku ko war li nee na ku saggan ci ba defoo li la yàlla li li la war li la yàlla digal. yàlla nanu yàlla musal ci loolu. ci barkeb Serigne Touba. kon nag yàlla nañ ko fekkee ay déwén yu bëree bëri bëri bëri. te yàlla faj ajo yi zaahir ak baatin. pakk yeeg pax yëpp rek sunu borom fàttali ñu ko te yàlla te yàlla may nu saxaadatu daare ni muy texeeg àdduna ak texeeg àllaaxira mu ànd ak tawféex bu baax te di ko ñaanal it yàlla guddal fan wéral ay cëram ba yéene yi mu am ci lislaam ak ci yoonu Sëriñ Tuubaa yëpp sunu borom dafa ko ci kaw ngi dégg kenn ku ne fa nga nekk jàng fatiha fallati naasi ayatul kursi àllam nasra ñu ñaanal sëriñ bi yàlla yàggal ko fi ba li mu yéene liggéeyal sëriñ ak boromam yàlla may ko mu njëkkee fatiha fallati naasi ayatul kursi àllam nasra lu bi ci yonent bi ñaanal ko Bienvenue sur Salam Vision thank you